ñoo ngi leen nuyooti bu baax di leen ziyaara di leen balaaq di leen balaaq di ñaan subhaanahu wa taala yal na yàlla boole baal te di boole ñu jéggal yal na yàlla yërëm way tawat yi yal na yàlla saafara way tawat yi yërëm way dawlu yi ñu ñu fi des yàlla guddal suñu fan tënk mu saat musaxi mbàkke suñu dund barke sëriñ Tuubaa di nuyu bu baax tey ziyaar Seex Muhammadul Muntaxa di ko ñaanal mu yàgg ànd ak mboolem njaboot suñu Tuubaa yal na yàlla nangu sunu koor suñu jaamu yàlla may ñu eggale ki suñu sago tey di seen juróom-ñeenteelu uh, jataay ci seen émission bi ngeen baaxoo di ànd ak ñun bon umee koor ba tey ñu tudd ko jataayu koor gi démb ñu doon benn dénkaan boo xam ni radiyallahu anhu sëriñ Tuuba moo ko doon dénk rakkam di taalibeem maam Cheikh Anta Cheikh Sidi al Muxtaar borom gaawaan borom daaru salaam muy di ko wax rek ci dénkaan loolu ni ko متى رأيتم الكتاب فاعلموا بأنه نور لكم فتسلموا ni ko su ngeen gisee sama leetar bi su ngeen gisee bataaxel bi ngeen xam ni ak leer la ci yéen kon di ngeen mucc waaw su ngeen gisee sama bataaxel bi xam ni ak leer la ci yéen kon di ngeen mucc ni ko naxaytukum naxaytukum amma naha anhu alkitab fa saariu ila l ilahi bilmatab daan ni ko lépp lu alxuraan tere rek tere naa leen ko lépp lu alxuraan tere tere naa leen ko kon na ngeen gaawantu dellu ci yàlla tuubal dellu tuub ci yàlla ni nabaxtukum wa innakum muntabixuun wa ma liman akramahu allahu muhin ni ko yéenaa leen yéenaa leen waaye fekk na ngeen yewu daan ni amul kenn koo xam ni mën naa doyadal ku yàlla teral ku yàlla teral kenn mën koo doyadal in maxsi xaaraka wa faarixul xasad ruumu taxabuban bi xalbin wa jasad ni ko kon dajaleel say ngeen nekk benn te ngeen teqale ko iñaan te soppante ak ci baatin am solo dajaleel say ngeen nekk benn ngeen teqale ko ak iñaan ta soppante ci zahir ak ci baatin jamaalukum wa sahyun wa adab fa laazimuhu fa yunfa ankumul wadab daa ne ko seenub taar yéen mooy xam ak jëfe xam-xam ak i teggiin kon na ngeen takkoog loolu su ko defee yàlla mën nee na dàqal lépp loo nga xam ni mooy ñaawi teggiin jeexale ko ni ko ruumu imanat al xulubi lis samad arrafixi samaai min xayri amad sàkku leen wëbbati leen xol yi jëme ko ci yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ni mooy aji yëkkati asamaan te maanaam mooy ki nga xam ni mooy yëkkati asamaan te amul benn benn benn kenn boo xam ni tiim na ko kooku mooy subhaanahu wa taala jël leen seen xol yëpp ngeen wëbbati ko ci moom jeexale ko ni ko wasalaamun aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu laqun wa balligh salaami ila al ummi wa saqiqati wa xayrihima miman hunaka wa salaam ni ko nag ma nuyul nag sa waajur wu jigéen ak sa mbokk mu jigéen moom nga xam ne yéen a bokk lépp ak képp koo xam ne mi ngi foofu rek ci yow daal koy tëje wa salaam yi loolu mooy bi nga xam ni Serigne Touba dénkan na ko maam si Anta borom gaawaan nga ciy jàngate ci dégg ni moom euh, ku ko masaana jox hadiya dina la delloo ci yàlla subhanahu wa taala waaye dana namwaat sa saxool waaye dana nammaat sam xel waaye dana la fàttali nga xam dana la fàttali li nga xam ni moo la boole ak moom te mu nekk ki nga xam moo lay gindi di jubal di la wax siraatal mustaqim te yaakaar naa bindub démb bi ak bi dim bindub démb bi ak bindub tay bi wax ji feeñ na ci kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax yal na yàlla defoon dégg ak topp xam na bu subaa ak jàmm bu ñëw yéen ci yeneen dénkaan ci yeneen i bind jeexut waaye fi ñu war a ekkatee jataay bi moo jot xam naa leen jox dig daje rek ba subaa ak jàmm ci waxtu wi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu